waaw man. waa li tax ñu teew fi tey ñun ay liggéeykat la ñu woon depuis 1989 lañ doon lañ la la ñu Samé Bourgi mi nga xam ne mooy directeur général bi dàq ca entreprise ba ñu ne ah c'est normal bu ñu dàqee puisque pays yo dëkku yoon la dëkk yoon la. ñun li ñu war a def mooy dem tribunal ba ñu demee tribunal ba 2003 yàlla may ñu ndam ci moom yàlla may ñu dam bi ñu yàlla mayee ndam avant nag boobu Samir Bourgi ñëw na ci entreprise ba sàcc matériel ba jaayee ko Mali Guinée ak Côte d'Ivoire te ñëpp xam nañ ci euh, liggéeykat lan moo koy garanti mooy matériel bi matériel boobu nag avant procédure bi sàcc na ko jaay ko ñu ne nag nañ ko attaqué kon civilement puisque rapport de clôture ak rapport de carence yëpp condamné nañ ko biñ ko condamné ñu ne ah euh, euh, nañ ko attaqué civilement attaque ci nañ ko attaqué civilement biñ ko attaqué civilement ñu am ndam ñu am ndam ci moom waaw maanaam que tribunal ni kii kat nañ ko jox nañ na ndàmp travailleurs yi 700 millions 736 millions de francs malheureusement exécution décision de justice ça nag xaw a tout problème suite. ndaxte d'une part ndaxte d'une part euh, dañu dañu étant donné que un milliardaire industriel donc am na ay compte bancaire Nous dem 25 banques de Dakar Sénégal banque yëpp nous ah kii kat amul xaalis qui ci banque bi wala amoon na fi xaalis wante tëj ko ñu ah kon puisque ñun dañuy am jaaxle bon ci loolu nekk industriel am ay milliards te sa xaalis doo ko dugal banque fan nga ko yóbbu ci paradis fiscaux yi ci paradis fiscaux yi nga koy yóbbu wala da nga yóbbu Liban loolu ay laaj yi ñuy laaj te yaakaar naa ne état bi war nañ ci mënee tontu ci laaj yooyu léegi ñu ni état doon ko mobilier de bureau yaakaar naa ne war na koo am ca këram ga mu dëkk ñu dem fa biñ fa demee ba saisir ba war koo jaay jabar ji ne moom moom matériel bi moom koo xam ne kii industrie pendant plus de 40 ans nga dëkk ko si kër te moomoo foo sax chaise ba nga xam ne moom ngay toog loolu nekk laaj boo xam ne bii war naa jaaxal sénégalais yëpp beneen bee tam ñu ni nañ dem ci conservateur yoo xam ne ñoo nekk domaine conservateur yi nekk Dakar yëpp yëpp yëpp yëpp dem nañ fa malheureusement ñu ne ñu amul état de droit réel fii ci dakaar ci Sénégal non dañuy dénoncé ñun lu ñu waroon def def nañ ko mais dafa mel ne kumba am ndey ak ko kumba amul ndey état du Sénégal respecté wul maanaam jàppale wuñu ci xeex bi te lu ñu mën def nañ ko tey bu ñu woon demande bu ñu demandé woon marche sax wala sitting buntu kër Samir Bouji préfet ni ñu ah mënu leen ko fee def parce que arrêté Ousmane Ngom moo tax. ñuy xaar mooy l' état du Sénégal woo Samir Bouji ni ko mu joxe droit travailleurs yi justice moo ko moo leen ko jox. moomatu ko té multimilliardaire la Covid bi rek gagné na ci ay milliards yu ceeb ak yu xamul donc suko fayal da kaa neex et puis euh, mm. autorités dañ ko bayyi ci liko ko neex mm. parce que ñu ci bari da leen di entretenir. instant jamono ne boo gisee tey loolu ñu bayyi suñu liggéey bayyi suñu te bayyi suñu lépp dafa am lo xamul depuis indépendance ba légui ñu koy xeex dañuy def benn rappel rek bu ndaw ndaw le cas le Mamadou Dia instant bo xolé lool rek doyna injustice instant bo xolé Senghor dafa demoon ba ci biir am jalousie sa boo xoolee bu ñëgë ba le président Dia rek mo nga daan dégg partout au Sénégal ñu dem ba ci biir nag jalousie jug nak mu sank Mamadou Dia te nag damay na ben rappel nak historique bo xolé en ce moment là tous les gouverneurs ñëpp signé bam dess gouverneur Abdou Diouf bo boo mo ba ñu gouverneur bu Kaolack amone 25 ans mom dafa bañ na carrément lu signé lol pétition bi Senghor dal koy méré dal koy destitué yóbbu ko intérieur ñu dem au fur et à mesure ñu dem ba ci biir comment dire comment dire am na benn paa boo xamante ne moo doon bindal Senghor nekkoon nekkoon nekkoon moom mooy nekkoon secrétaire général dem ba ci biir nag jëm mag nag commencé seen maxa nag nag commencé di ko bindal léegi Senghor léegi nag dem ba ci biir nag carrément ah doyen de yow de bind bii de ko mën carrément ku ñuy wax Abdou Diouf te nekkoon gouverneur Kaolack ba nga dàqoon moo doon bind yàlla def nag yàlla def Senghor daa koy nommé secrétaire à la présidence nag dem mu nekk premier ministre dem ba ci biir nag nekk calme nekk njiitu réew Sénégal loolu lépp boo gisee mooy dëggu. Macky Sall en même temps nag mu changé dugg nag carrément Barthélémy Dias da nga ko war a taw Barthélémy Dias li mu bëgg a yóbbu mooy lan mooy maire de la ville de Dakar te da koy am par A ou B Barthélémy Dias incha allah maire de Dakar léegi nag li des carrément kilifa et suñu naataangoo la suñu kilifa suñu lépp ñoo bokk benn mouvement Y'en a marre boo gisee Macky Sall bëgg a dama ay laaxam dafa dafa sonal gouvernement Macky Sall dafa leen sonal te boo xoolee ma Macky Sall saa yi boo ko sonalee daf lay jéem a dama say laam bu la mënta si xaalis da lay jéem a tuumal le cas de Khalifa te mi ne moo nekk suñu président gis ngeen lépp lu fi xew en 2009 ci la taxaw def taxaw Dakar yàlla def ko mu gagné mais Dakar avec la haute main dem ba si boo gisee Dakar Macky Sall gagné ko c'est à cause de Khalifa Ababacar Sall moo ñaata moom reyante campagne ba mu gagné ñu dem ba si biir nag ñu wute ay gisin nag poste bu dee poste ji ne Macky Sall la dégg na ko Khalifa Sall carrément boo bëggee léegi loo bëgg léegi ma jël ko nga ànd ak man Khalifa bañ na carrément man PS ma carrément drapeau vert bi da kara mooy tànga suul du ma du ma mos a transgumé ma xew bi nag xew bi bi nag leen la ñu Sénégal gépp ñu ñoo war a bokk ndey ñoo war a bokk bàyyi di xajjandoo dóorandoo isaay boo xoolee li nga xeex bi du xeexu man du xalifa du Sonko du keneen xeexu Sénégal la isaay boo xoolee la coalition yeewu askan wi dafa ñëw pour lan pour pour yeewi askanu Sénégal si si si li nga xam ne moo ci ne léegi nag il faut que gars yi ñu taxaw temb xajjandoo dóorandoo soo demandaay bi moom ñun bettuñu Macky Sall nee na du nee na nee na xam nga xamul du góor du jigéen du wii du non léegi nag élection locale yi nag mooy wane ëllëgu Sénégal te fii la nga war a fajee nag balaa ñu àgg 2024